sama jëkkër dafa yoon te dakaa juddwaale maanaam ci àdduna bu mës am doom te sama jouru linda miyel ak moom laa ko découvrir bi ma marié ak sama jëkkër ak léegi def nañ plus de quinze ans de mariage mais sama jouru linda miyel la ma wax ni moom dafa juddwaale impuissance maanaam dafa yoon bi ma ko waxee ma ne ko bu dee loolu la de du ma la mësa bàyyi ci sa àdduna dinaa la soutenir taxawu la ba nga xam ne yoon bii du dara ci sama diggante ak yow ma toog na di ko muñal te yàlla tax si biir quinze ans de mariage yi lu ne dégg naa ko dangaa jaasir yow bànneexu yaay doo ko mës a xam doo xam luy bànneexu doom lu ne sama njëkkee ak sama goro dama ko wax ci kër gi nga xam li ma xam rek di muñ te yàlla rek ñu dem tey jii kër gi ñu may tendre pierre lu ne ñu ma koy def lu ñu ma koy wax ñu dem ba ni dañuy takkal sama jëkkër beneen jabar comme que man mënuma ko jural ay doom te sama jëkkër dafa bëgg a nekk papa te li ñuy wax yëpp xamuñu ci dara ma ne rek ñu dem a dem ba manigan si jël sama cousine jëkkër may ko ko ñaaree indi ko ci kër gi biñ ko indee ci kër gi sama jëkkër xam ne tey jii kat lii jëmul ca te mënatul suturaal boppam mu dem ci si yaayam daal koy wax ni ko moom dañ ko yow te maanaam du mës a am doom ci àddunaam biñ waxee loolu ñaareel du ñu moom xale la àddunaam kenn du ko ko yàq daal di jëkkër ji la ko may baat mu dem waaye loolu sax metti ma ndax sama jëkkër SP xam ne du ma ko àndalu ko metti ndax suturaam lañ ko xaaree sama jëkkër amatul joie de vivre foo ko fekk mi ngi tëju rus naa jénn ci mbedd mi ñu koy xool ko wokkante dem na ba bëgg a xaru te tey jii bëgguma lu dul soutenir sama jëkkër bëgguma lu dul taxaw ko ndax xam naa ne li mu nekkee métti la ma doon laaj solution ku am rek loo xam ne mën nga ma ko baaxee comme solution ndax sama jëkkër mën a retourner waat ñu waat ñu web ndax is bi jaaxle na te lépp la doon ak yaayam ñoo ko teg ba pare ñu ngi tourné di dund seen àdduna di xàppi te sama jëkkër a ngi toog am benn rancœur di dafa malheureux en fait ci ci ci àdduna te loolu lépp ñoom ñoo kat. salaamaaleykum salaamaaleykum dal leen a jàmm sur confidence te ne dañoo ñëw pour ñu aborder benn cas bu xaw a doy waar benn waytu dund waa dafa yoom te da koo judduwaale jabaram bi nangul na ko situation boobu noonu ba tax na da koy suturaal ñoom ñaan ñu dëkk mu mel ni dara xewul waaye jamono ji nag waa dafa nekk si benn situation gu grave parce que ay parents poussé nañ ko ba mu takk ñaareel waaye ñaareel boobu mu takk moo leen poussé mu wax leen vérité bi mu xamal leen dëgg bi nu mu demee dëgg googu nag mu di moom dafa yoom te jabar ji nangul na ko ñaareel bi mu takk nag nangul lool benn yoon ba tax na ñaan baat te dem na dellu seen kër waaye nag jamono ji muñ confronté ak dépression bu méttee métti nangootul lekk nangootul naan ba tax na day tëju jabaram nag moo ñëw pour ñaan si wàllu parce que bëgg na jëkkër te bëgg koo toog di ko seetaan muy demee si dépression ba ay xaru di nekk si xel gi dafay ñaan solution nag parce que jamono ji nag jaaxle na ñu ngi leen laaj seen xalaat ana lan mo war a mën a solution pour waa ji nii mais heureusement jabar ji nangu na koo taxaw nangu mais loolu noonu yëpp doyul ñu ngi seen xalaat nag jox lañu seen xalaat à travers les commentaires sur ce ñoo ngi waxante ba beneen sur Confidence